drapeau journal bi neexoon na waaye di di di félicité waa Dakar di félicité waat waa Dakar bu baax a baax ndax gis nañu liggéey bi nga xamante ni suñu papa Tafa Gueye def na ko ak perkat yi euh, na nañu xale yi ak yeneen équipe wala yeneen région yi nga xamante ni ñëpp teewoon nañ ci drapeau chef de bi waaye yàlla dogal na ni Dakar moo ko jël euh, nañu waajaat rek beneen yoon incha allah keneen mën na koo jëlaat ñu wéyal ko noonu gis nañu làmb fi mu toll nii tijji na am na yenn am na combat yoo xamante ni jege si nañ samedi ñoo ngi jëm ci diggante Angleterre ak nga xamante ni nii mooy euh, nu mu tuddee tuwaay ak Moustique maa ngi lay jaajëfal bu baax baax Angleterre ak ki nga xamante ne bu kii Balla Gaye ak Petit Lo dimanche ñu jëm ci journée moo géet ah diggante Baye Mandione Zarko am na yeneen combat yu bëri bëri yoo xamante ne dox na ci ñu ciy jaajëfal moo géet bu baax a baax ak ñëpp ñu ci àndal ñoom Prési Paté ñoom Fadam 2 ñëpp daal ñoo ngi leen jaajëfal tey nag maa ngi ci émission mag bi nga xamante dalal fi ñaar ñi nga xamante ne ay xale lañ ñaar yi nga xamante ne ay champion lañ euh, mu dox ci diggante ki nga xamante ni mooy Baye Mandiaye wooye Géejawaay ak ki nga xamante ni mooy Boy Dakar mooy boobu lan NGB ah. ala cara tey ñoom ñaar laa fi dalal bëgg waxtaan ak ñoom ci làmb ndax ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk combat bi ngay mujjee bëri arène nationale ndam ci jëlee kii moo ngi nga xamante ne mooy caatu ngéwél daan ko jëlu booy Baye Mandiaye mujjee bëri ki mooy bébé bis mi ci ndam boobaak léegi nag ah, ñoo ngi dox seen combat waaye combat dafa xaw a waaye lii nag am na koo xamante bi mu ci waxtaan ak moom dafa ne ma combat ko daax ndax làmb la joo xamante ni ni ñoom ñaari adversaire de taille lañu te tolloo nañ bu baax a baax yaa ngi ci ñaata combat. huit combat ñaata victoire huit victoire yaa ngi ci ñaata onze wala. douze ñaata combat ñaata victoire. onze gis nga benn défaite. defe naa ne ñoom ñaar kenn mënu cee bañ sama ma bàyyi leen ñu nuyoon nag ñu doog a wéyal waxtaan wi Boy Dakar nuyu naa la. waaw Ousseyn lay fay gannaaw bi sant yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur sëñ Babacar sama maam sama sëriñ sama lépp yàlla na yàlla yokk reeram di nuyu fukki di nuyu kilifa diine yëpp euh, waa Touba waa Tiwaawoon waa Njaasaan waa Medina Baye bàyyiwuma kenn laayeen ni tamit bàyyiwuma leen ñëpp ci biir ah di nuyu xaadir yi tamit sama ñoom maam ñoom Aydara waaw di nuyu sama président staff Aydara Mbacke Niass borom TikTok bi ah. di nuyu waa ñaartal bu baax a baax di nuyu waa Kër Madiabel Pane Sader laa maram jokkul gànket ah. di nuyu waa Saalum bi bu baax a baax a baax a baax ku mel ni dëkk bu ma yaroo muy Kër Omar di nuyu waa Koutal nga xamante ne saa yu ma demee compétir foofu laay dal di nuyu waa mu saa booy Lat Menge Dagga Dagga Yundum euh, Thiamène euh, Thiriac Kumbal dem ba Casamance nuyu waa Tangoori bu baax a baax a baax a baax waaw bàyyiwuma kenn daal képp koo xam ne mu ngi big up Boy rek maa lay sant di la gërëm di nuyu Moussa Niang waaw bàyyiwuma kenn daal di nuyu ñëpp képp koo xamante ne daal waa marché Castor euh, marché ngelaw ma leen ñoom Moussa Sarr bu Kassor Moussa Sarr bu ngelaw ak Assane ma leen waa asxaabul janatu tamit suñu sëriñ Baye Modou maa ngi koy siyaar bu baax a baax a baax di nuyu taalibe yëpp waaw. nuyoo nga de Baye nuyu naa la. Ousseyn ñu ngi lay fay. auzu billaahi mina seytaani rajiim ginnaaw bañ sant yàlla ju yonent bi sant samay ñaari waajur di siyaar ñu toog ci saal bi yëpp. Hmm. waaw di bëggee Njool Jibi Bale Mamour maa ngi koy siyaar di bëggee Boy Dagaan. di la bëggee Ouzin mm-hmm. di ñaanal sam papa fi mu tëdd yàlla na ko gënal fu mu jugee. di ko ñaanal yaayu am yaayu Malick papa suma rak daan faan ngeen di ko ñaanal sama ndijaay di bëggee waa guy gi jot mbaar moom sori gunaas xam nga di jaale tamit Assane sam benn grand bu génn àdduna di ñaan yàlla na ko yàlla yërëm. xaare ko aljana. waaw di sant nag waa guy gis nañ monument bi ku si mel ñoom Thier xam nga Adama deux waaw Zigimar Seka. affaire bi rafet na Babacar ajuma ñëpp geste bu rafet la ñu ñaan rek yàlla defal ñu jàmm ñun ñëpp may ñu gudd fan wér gu yaram waaw di bëggee àdduna di waa caara bi di bëggee père Jarafa waa père di bëggee sama mère Sooy di bëggee àdduna di bëggee sama taawu yaay Abdou Mbaye mbiida ante caam sama mag di bëggee suñu waa kër yëpp di la ñaan ci dëkk bi jàmm aco Ousseyn gis nga ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk nuyoo nga nuyoo bi am na solo lool mais ma di leen ko fàttali ñoom ñaar ku ci nekk avant ngay am combat ki dalaloon naa fi moo Kaw Gourdin yàlla dogal na ni euh, bi mu ko fi dalal moom ak Kaw Gourdin laa dalaloo mu jóge fa jëli caatu ngéwél li naan pomme de ma gënal pataas moom loolu la mujjee def kii tamit bi ma ko fi dalal dalaloon naa fi moom ak ki nga xamante ni noo yow yow ak Kaw moom ma daloo ko moom ak caatu ngéwél yàlla dogal mu wàcc ko fi dem jëli bébé bis mi tey nag yàlla dogal na ni ñoom ñaar laa fi mais lan moo tax ma invité woonu loolu nga bàyyi fi nga bàyyi fi nga bàyyi fi Kaw Gourdin dem jëli caatu ngéwél lu tax loolu. waaw loolu la. naa ne yéen bëggante woon ngeen. ma kan. yaa Kaaw. Kaaw. waaw lam moo ñu boolewul woon waaw te yaakaar naa ne avant boobu bu fekkee bëri naa ba pare. Ah, waaw bëri naa si laa bi. ok waaw dama bëri caatu ngéwél après si invité ñun ñaar waaw mais lamb nag dafa toll moment boo xamante ni waxul dëgg waaw moo tax des fois da ngay bëri ñoo xam ne waroo bëri ak ñoom mais làmb moo toll foo xamante ne suñ la joxe adversaire jëlal parce que tey jii nii ñu bëri ñu ngi bëgg nga dem ci kaw. Mhm. ñooñu ñooñu di wax loolu noonu amaana ñoom duñ la jox dépense. Mhm. mais làmb moo toll foofu noonu saa dañoo war a dimbale suñuy wajur yi tey ku ñu jox combat dañuy jël waaw parce dafa am fu ñu teg suñu bët dëgg la mais làmb moo toll foofu. kon bokkuloo ci mbër yi nga xamante ne dañuy taamu ñu ñu war a bëri non maanaam taamu bi day day da ngay gis koo xamante ne bëri na trois combats ñu bëgg la jox koo xamante ne bëri na ay vingt combats loolu noonu mënul nekk koo xamante dafa rampe ak ku rampewul bokkul waaw. boo soñoon daal bëri say morom. bërëm bëri say morom koo xamante sax xaw na tene waaw nga bëri moom mais tey jii nii man lu ma def si làmb amul ku mu umpul ci kuy dund làmb. Mhm. waaw bëri naa ku nekk bëri naa ñoo xamante boo Dakar tey de. ngay dégg waaw kon su ma tollee fii rek war nañ ma jox adversaire yoo xamante ne normal na ñu may fay fay boo xam ne normal na te maa ngi dugal stade loo xamante ne sama moromu bari bëri dugaluñ ko waaw. léegi nag da nga gis làmb léegi xaw ma na lañ koy waxee ku mu amul ndey xam ku mu amul. mu amul ndey waaw noonu la léegi quoi. bëy bu amul bàjjen la rek. voilà noonu la demee mais fi mu toll nii làmb fi nga ci toll yaa ngi ci commencé am wéccet. su ma la waxee nii 2000 francs moo 2000 francs mais am na leen lu nekk ci compte bi. dara nekkul ci compte bi ñun dañoo sonn ci làmb ñun suñu reliquat balaa ñu koy jot rek day jeex. maanaam des fois nga dem ñu dagg la. voilà mais ñun dañoo xam maanaam dañuy topp réglement làmb ba du ñu def yenn yi. Hmm. moo tax ñu bëri duñu ñu bëri duñu ci dagg. nit soo tokkee règlement làmb rek dala dalu ci fekk mais loolu yëpp dañ ciy sant yàlla amaana lu nekk ci kanam mooy dàq mais dañ koy sant yàlla rek waaw. lu ñu ñax am combat na ñu dem def dara loo xamante ni lu ñaaw la wala lu bon la. Mm. mais ñu ngi suñu ruq di entraîné topp lu ñu toppale topp suñu liggéey suñu métier boo xamante ne am nañ ko waaw. kontaan naa ci yow ma ñëw ci ki nga xamante ni mooy Baye Mandiaye moom tamit kañ nga bëre woon ak Bébé Bismi. waaw le 9. le 9 kañ. le 9 janvier ba ñoo ngi ci mars. waaw ci mbëmu ndaw nga toog presque 5 mois yoo xamante ni da ngay entraîné ak di loolu. waaw mais aussi avant loolu may sant sama sëriñ ah sëñ Kaaw. ku mm. di ko ñaanal jàmm. waaw. waaw depuis boobu ba tey bëriwuñu mais tamit lu jot rek day yomb man xale laa yàqamtuwuma sama dara ñaar ñi ma àndal yëpp samay grand lañ kon xam nga ne xale laa. Mm-hmm. judduwuma yàqamtuwuma sama dara bu demoon ba vingt ans. yàqamtiwuma ko. non mais nag mais nag xam nga mbër moom euh, euh, balaa ñu naan mbër la day bëri mais mbër mu bëriwul daanaka nekkatul mbër am na fi ñoo xamante ni bëreetuñu moom kenn mënatu leen tuddee mbër. Ousseyn man maa ngi bëre chaque jour. fooy bëree. mbapatu koñ sama koñ ci baasi. maa ngi bëre mbapatu koñ. ji koñ moo ngi ba léegi. waaw sama koñ foofu géej luñ fay teg. ay saaku ceeb ay wargaas suukar affaire yooyu. maa ngi koy bëree dimanche bi paase rek. wala wala dimanche <laughs> waaw. ca caaxaan noonu da ngay mbapatu koñ. sama koñ foofu man xale la yaa kan la woon. kan la yow amu xulee ak Xaadim Njaay ñoom ñaar laa daan li ngay def nga. <laughs> non sérieux Amu Xule laa daan demi final Xaadim ah. Njaay laa daan final Zil Njaay laa daan premier tour ah. noonu la demee waa <laughs> mais léegi suñu ñëwee ci lutte avec frappe parce que gis naa ne booy yaa ngi bëree. Mhm. yenn booy ñoo ngi lay fekk si yenn yi ñoo ngi la fi sama ñenn ñoo ngi la fi bàyyi. Mhm. lan moo lan mooy problème bi adversaire yi. non problème bi du dara am problème lan mooy kii ñu may wax laa bëggul booy Dakar mii laa bëggul. non yow da ngaa teel a ñëw da ñëw ci kii parce que man. dama bëggoon damay wax ak moom mu dégg ma. booy dakaar mii laa bëggoon loolu déggoo ma ñaata combat la wax la am. onze. douze. douze douze. onze victoire benn defet man ma am huit. kii bu amul fulla ci làmb dépassé na niveau bi mais amul fulla amul fayda bu amul fulla <laughs> dépassé na niveau bii mu nekk ci làmb kii ba muy bëri juddu wuñu daan na ma tournoi sama premier génn tournoi. waaw yàlla ñu ma tàggee sama yaay non man damaa dëggu man mhm. je suis naturel. daan na ma tournoi mais boobu laa njëkk a génn di bëri ji tournoi. waaw mbapat boobu ki toogoon fii bëri na ci. mbañu Jacob bëri na ci. seen koñ ñoom yankaaw bëri nañ ci ah. lu mu tudd ku jël Alioune Seye junior lu bëri na ci kat Buuba Mbaye Tine mhm. ñu koy wax Orca. ma rampe man ba mhm. yegg final. yaa moom loolu yënda seen final combat moom. may léew toog moom muy arrière ma topp ko muy arrière ma fàq ko daw di ko naax mu biij ma weñ ma sama poids la ma daaneel ndax maa biij weñ ma parce que boobu xelu booy bi mais kii bu ñu bëree dix fois ma daan ko dix maa la mën maa la doole fukki junni yoon maa la gën a yàqu <laughs> maa la gën a jëlal avance bi lu ngay wax li yëpp <laughs> parce que yóbbuwoo ma fenn jëlal avance bi sa waay yow yóbbuwoo ma fenn nga jël avance bi da ngay jël avance ma defaral la yow waaw parce que foofu nga toll ci foofu nga toll ci làmb mais yow vingt ans doo dem gàqu doo ba mu bëreeg ba pare kenn déggutu ko sama a dem ne ko yaa koy téye yow ça va sama yoon yow xam ban saawu mbër déggoo ma de yàlla dafa tracé sama sa yoon nekku ci déggoo li ma la xam ban saawu mbër mbër boo xam doo dem doo dikk déggoo ma de sama dem point nga munoo dem munoo dikk a ñàkk fere yow douze combats yaa ma gën a ñàkk munoo déggoo ma de wax bi wiiri wiiri bi raamoon ma bëri jugal raam raamal ma bu rek yàpp. teel mi ko da nga raamal sama morom góor yi jël avance ñu bëri waaw may doyee dama nga bëri ak say morom. Eh. bëri maayow. tapet nga. yow góor kaso laa jëm mu ne lan suñu génnoon affaire làmb cadre làmb. waaw góor man ak yow man kaso laa jëm. pour raw kaso laay dem. bàkki Seex Ahmadu Bamba. déggoo ma maa la ko xasaw fukki junni yoon li ma sañ sañoo ko. jëlal avance bi man su ma su ma bëggee doon tapet sax ñu su ma koy forcé mënu ma ko déggoo ma de jëlal avance bi ñu ragal nekkul ci man góor góor yàlla boo xam dama lay xoof gisuma ko déggoo ma de jëlal avance bi waaw yow foo mën a yóbbu boo dama laa daan yóbbu gaaxu dama laa daan final génne tournoi ay dama na ko génne nga teg ko si télé bi nagu naa loolu ngeen xool man ak moom ku dem arrière man ak moom ak kam moo bëre ba daanu génne ko nga teg ko fii àdduna yëpp di ko xool man doomu génne laa xale laa mais góor yàlla du ma la reculer jëlal avance bi lu may wax li yëpp di téye microphone bi di wax nii rek ba nga jël avance bi ngay ndellu. saa yow làmba sax moo tax may wax ak yow de tous laa wax ñebe suñu génnee suñu génnee sax ma wax. boo waxee dootoo ko doole la yow. boo waxee yow xool si mën yow ko doole maa la gën yàqu fuuf. déggoo ma de gis ngeen mbokk yi ni lay demee ci jàmmaarloo ñoom dañoo teel parce que man li ma bëggoon. waaw làmb eh nekkal sportif. man du ma sportif sëñ bi tojuma sama xol. du yow yaa ma koy tojloo pas ma koy ah. tojloo yow sa xol laa wax ma koy nuyu di ko siyaar sama mbokk boobu. Mhm. ñun ay sportif lañu ndaata ma koy nuyu di ko siyaar. Ah, i nekk fi di delloo rek di wax loo xamante ne c'est pas waxable. yow bu ñu géwaloon ah. fii bëre dama lay rey. déggoo ma de lu ngay wax li yëpp gëmoo ko. sama kanam nekkul yaa ma koy dindiloo non da la bëgg affaire ibaadu yooyu amu fi da ngay taxaw ñu jàkkaarloo sëñ bi bu ñu bëree ma lekk la yow. déggoo ma de waxuma la ay affaire ibaadu lamb la ñu wax. bu ñu bëree laa la wax ma lekk la. jëlal sama avance. jëlu ma. Ah, kon tapé nga ah, doo tëj kon sa gémmiñ. waaw yaa war a tëj sa gémmiñ. jëlal jëlu ma. yaa war a tëj sa gémmiñ yoo ko. loolu nekk fi di wax di dellu kenn fenn yaag sa promoteur naan Baye Ma Ndiaye fay naa la nangam nang sëñ bi man. booy dañ laa fay muuni nga ragal bu ma ko amee doyloo na ma. man maa ngi ma dara man damaa doylu. tapé nga million guuxuma tapet nga. ay millions guuruma damaa doylu. tapet nga lu may wax li waxuma waxuma ko. ay millions vingt ans yaay bëre benn poste boobu naa bëre 40 lu ngay wax li yëpp waxuñu ko. da jël avance bi man loolu intéressé mais Baaba Ndiaye Baaba Ndiaye lan mooy problème bi parce que man damaa dugg si am na yu bëri yoo xam te bëggoon naa ñu leeral ko wala boo ñu teg ci suñu loxo tuuti mais da nga ñëw rek ñëw ñëw ñëw ci but bi. non parce que moo fi waaw non moom moo la fi toog fii nii di tirise quoi moom moo tax ma jóge sama gaale ñëw affaire góor la quoi. Hmm. n'est-ce man kii su ma xamoon na moom la du ma fi ñëw di yàq sama énergie. yow sa jëmmi bopp waxoo ma lii yow sa jëmmi bopp yow sa jëmmi bopp waaye boo xamoon kii la dafoo toog di ko tëkk na ñëw ñu bëre sama romu doom sëñ bi foo toog di ko tëkk nañ ma ko jox na bëréew maa yow sëñ bi bëréew maa ak yow te foo toog di ma tëkk bëréew ma ñaata combat tapen nga tapen nga boo amoon fu la dépassé nga niveau bi tapen nga mais Baye Mandiaye Baye dama yaakaar ne kii da la war a mën a may chance parce que bu defee douze combats nga def huit combats su bëggee bëgg yow da lay may chance. xam nga ñoo may may chance sax man ma ànd ca ñoo xam ñu ngi ci yoon bi. non mais moom ci yoon bi wax la. parce que bu daanee gàpp de ay ay ay maamoor yu toog ay. waaw may ma dama lay expliquer waa exemple laa lay jox exemple su ma mayoon sax chance. exemple quoi xam nga kii maa ngi moom si nañ su ma mayoon chance sax exemple ak ñoom mag ñi quoi. maam ñoom mais nag mais nag mais nag kaa ñu waxtaan kaa ñu waxtaan parce que kii moo daan Tyco kii moo daan euh, nu mu tuddeeti moo daan limal ma gàkku dë moo daan euh, caatu ngéwél mais nag ñett ñooñu rek boo leen jëlee lim leen ñooñu ay mbër yu baax lañ. ba muy daan Tyco. Hmm? ak manière nag bëriloo ko bu ba muy daan Tyco Tyco daanoogul woon de. waaw dama lay expliqué Tyco daanoogul woon moo ko a def defet. moo ko daan. Pape moo ko daan ba muy daan Tyco. Mhm. boobu maa ngi samay troisième combat trois. déggoo ma de. mais sa combat peut-être ah, dama lay wax voilà maa ngi samay troisième combat. boobu Tigo boo xam ne Baye Mandiaye da lay wax kan mooy kooku. Mm-hmm. dégg nga ma parce que moom moom ba mu ciy ne nekkuma ci. dégg nga ma. Mm-hmm. mais kii si jëmi boppam man dawul sama yaram. non mais lan moo tax lan moo tax nga bañ koo jël lan ci ban raison man boobu laa bëgg xam a xam. raison bi tax que su ma ko jëlee. Mm-hmm. comme nii la. maay neexal signature bi. maa ko ëpp mbooloo téeméeri junni yoon. déet xanaa combat mu dugal non xanaa c'est un combat bi am ah, sama téléphone mu génne téléphone non non jaww ko jaww ko non samay mbooloo ma woon ko mu génne mbooloo mu ko teg say bët caméra ko. am ah, sama téléphone non mais ko jaww ko. mu ñëw c'est man damaa dëggu man waxum tooguma fii wax loo xam nekkul ci man quoi. Mm-hmm. kii su ma góppul mbooloo kii su ma mbooloo yàlla bu ma teg. waaw d'accord naa am nga mbooloo mais combat bi. Ousseyn moom ku ñu estat waaw. saa mu ngi may jaay mbooloo di ma jaay lu ne. Mm-hmm. na jël avance bi jënd ko li ma lay jaay jënd ko. déggoo ma de mu ngi may jaay lu ne na jël avance bi. yow man ñu maam yow man marché laa sa côté yow du la jaay dama la koy jox ci gratuit doo jënd marché laa. bi nga lu ma koy ñëw jël si si gratuit du ma la jaay wax ni yëpp man waxuma ko jëlal avance bi ah. Fadaga bëréew ma ak yow. ñëpp di dégg àdduna bëréew ma ak yow parce que yóbbuwoo ma fenn. waxal papa dakaar sax nga xool. Baye Ndiaye rek maa ngi doo gis li tax li tax mu doon ñëw di fas kanam dafa am lu mu guuxoon. waaw ñun fas kanam dafa ñëw yóbbu fenn. ñun ay soldaar la mbapat ba dafa am loo. lu du dara maanaam dama ko daan xolam bi ma ko eh, eh, daane. Ousseyn ma wax la benn eh. affaire. barki Seydina Mohamed bu ma koy daan tollu ma nen formation laa nekkoon. billahi wallahi tallahi maa ngi watu def ma sax aw ma sax karaw. Ousseyn nekk formation. Ousseyn dama jóge si formation bi daw ñëw ci bëri si mbappat ma daan ko mu ngi yor doole bu dul jeex. mu ngi yor doole bu dul jeex ma daan ko ci mu naan ma poids. bi. parce que doole ku ko am am na poids bu dee tuuti ah. mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. kii maa ma man li ma lay wax nii bu ko génnee woon nga gis ko. arbitre prip ma toog samay tànk di dox ci kaw muy dugg di génn ma koy ngàdd muy dugg di génn ma mépp ñu jàppante ah ma fàq ko di plaqué mu def sélectionné sama poids ñëw mu delloo ma li ma lay wax kay lu am la. na ko Ouzin mi ngi sa téléphone. génne wu Ouzin àtte ngi sama téléphone. mais su ma gis nga nit ku nekk ak. ni ko génne woon sa émission boobu génne émission bi xool ko du ma triser bàyyi fa. sëñ bi yaay triser kon. du ma triser yow tapel nga jëlal avance bi. an sama waaye nii maam. Ousseyn li ma lay wax xoolal bu baax li ma lay wax. lii de fii rek lay amee ci jàmbaarloo. Ousseyn man du ma ragal xoolu nu ma bëree. wax ji da nga koy bàyyi ci ko bëree sëñ bi moom moo wane ginnaaw de. moom moo voilà xoolal ku dem arrière Ousseyn. kan moo dem arrière. kan la. Ousseyn xoolal lamb man awma tànku ginnaaw man jàmbaar laa. moo ko loolu nga koy dégg. jàmbaar jàmbaar da ngay jël avance gisoo ku ma ci arrêté yow munoo maa guux. munoo ma nax xale yi ñoo ma wër mais staff bu baax la am te ñii la munoo ma nax. ñooñu nag kenn du la si jox dépense. man ñaanu ma dépense soxla ma ku ma ko jox. waaw. voilà naaj sax nga dugg si ah. làmb ji ni ñafe faayet. li may am maa koy gis nga jéego li ma la bu fekkee leen amu ci nee ma lii amul. waaw non noonu la demee mais non wax rek. li ma bu dee amul nee ma lii amul. noonu la demee mais dama ne dama ne dama ne xam nga yàlla nañ daje simple kii instant bu ñu bëri woon simple non non déedéet man bëgguma lool parce que parce que damaa gis promoteur yoo xam te dañoo bëgg a taxawal combat bi Baye Mandiaye bu ko bu ko bu combat bi taxawee mënuñoo gis combat bu dàq combat bi ma bëri jaddi jaddi moom ba gënal ma bëri kii mais nag Baye Mandiaye Baye Mandiaye da nga ñemewul kii Ouzin da ñemewul wala lan la Ouzin bis mi moo jógee moo kii ku sut bee bis mi sut ku ëpp ki daa bee bis mi xool kii ni mu kii moo ëpp dog te kii maa ci tooy waaw dañuy waxtaan kii ni mu toll doole ëpp na noonu. Ousseyn dañuy waxtaan. Mhm. ci ci dog laaju. ci dog su ma sañoon may ma may ma expliqué Ousseyn may ma expliqué. même lu may expliqué man ku nekk na jóg. Ousseyn même lu may expliqué. mais mais mais wax bi jarul muy bëri man gaynde toog ak man. bëgg bëggul bëri ak man. samp yoo mooy toog ak man gaynde bañkat. yéen kaay wax benn affaire man gaynde laa de gaynde toog ak man di wax. mais xëy na peut-être bu xaalis bi ñëwee mu jël. dégg nga suñ ko fayee 10 millions sax du bëri. Ousseyn Ousseyn Ousseyn xam luy jàbbi ah luy jàbbi kii 10 combat maa ko mën waaw mais nag doo ko jël nga daanal ma ko. su ma ko jëlee ñii dañ may tëddal raay ma. ndax lan bëgguñu ko xamuñu ko. sama ko déedéet non ñoom waxtaan parce que du damay yow lañu àndal. Ousseyn du damay du loolee du loolee Ousseyn mais mais xam nga xam nga xam nga tamit ñi ñuy làmb lañuy lañ la ñuy bëgg di gis parce que lii maam moom mi sax bi bi ma ko laajee dafa ne lii làmb ko dàq te moom ci làmb la nekk mais ñii yow la ñu àndal mais amateurs yi nga xam ne dañuy seetaan wala téléspectateurs yi nga xam ne dañuy seetaan ñoom xam nañ ne lii làmb du ko dàq. yaa dama ne la dama ne la parce que Thiatou moom sama koñ ngeen fi def yëfi géewul def affaire yu neex dama lay invité dafa ne da ngeen fi nekk di waxtaan sama deret la waaw da ngeen man ah, a yomb ñu waxal la lu baax quoi loolu moom am na yee kooku sama deret la ma ni ma ma wax ci moom lu ñaaw mais tey daa daaw de tey dafa waaw <laughs> parce que ñoo bokk ndax. mais nag merci beaucoup waa léegi waa léegi voilà déglu ma may ma yeggali sa doomu ndey la sa waay la kii da koo daan ba ci démb yàggul. vite fait bien fait la ko daan. waaw est ce que doo ko ñëw tamit jëlal ko. revanche ba mu ko daanee ba mu ko daanee. waaw nan la ko daanee. da kaa jaay doole. non gaa benn song la waaw parce que day naxee. da ngay bañ mu nax la da maa mën a na nax yow yow bu fekkee xam nga kuy Baye Mandiaye xam nga moom bu baax xam nga ne kii bu arbitre sifflé ma buñ dama koy dóor ba mu dee dama koy dóor ba mu daanu kii du ma moom dama koy rey bàkki alxuraan du ma moom kii maa ko gën yàqu fuuf non dama xam ne kii boo ko jëlee xol ngay waxee da xol dama xam ne boo ko jëlee combat bi pare combat taxawul xol di jóg non mais nekkal sportif ñun on s'en fout. yow yaa ma koy def. on nga see ak nu ma mën a toll. waa lii gàcce la vingt ans nii ngay toll. déggoo ma a toll. gën a sa kaw te nii nga a toll. su ay xale lañ dañoo doole. amoon doole doole daan ma. yow boobu may bëreeg yow sama premier. amoon doole daan ma. booy ak lu ma daan ku gën diis Jacob moo gën a Jacob nan laa ko def waaw may ma may ma wax la Jacob moo gën a diis fu bul tirisee Jacob dama jàpp tànk bi woo ko ndoom jàpp tànk def sélectionné yéen ko parce que boobu moom am na xam-xam bi am na fu mu ci niveau tollu ma fenn mbaytin oka oka xam fa laa nekk sama waa dëgg papa ñoom ñoo ma yëpp wuy ma Moussa Boy baax sa cameraman wuy ma man boobu xaaj ñoo ma jël boobu aw ma carte boobu ngay bëre noonu di jël aw ma carte ma jël ko dégg Mbabadou Kane nu mu tuddati sax. Dakar amul amul affaire la xale. Mbabadou affaire lamb la dañuy bëree. ma fekk. ay xale ay lii loolu amu fi. bi. ma ne ko nañ dem sama saa amul affaire la xale. ma lamb la amul affaire la xale laa wax Ousseyn. am na loo xamante mais yow ma lu ngay wax li intéressé wu lamb amul affaire la xale parce que Ousseyn lu ngay wax lii yëpp amul sens tegal nañ joxe avance bu bëri. nañ dem ñu ànd dem ci mbapat bi ci jour bi ñu ngi benn gaale bu jàkkaaru mbapat fi mu amoon ci kaw étage bi lañ toog foofu di xam ga di nalaw affaire yooyu noonu ba jour bi ñu ñëw bëre. billaahi ñu ko gën a diis foofu laa daan man ak moom ñu daje nawloo ma ko pour man maa ko mën téeméer junni yoon. parce que xaw ma ko non boobu xaw ma ko. koo gis mu tuuti. jeex na su ma la waxee dëgg xaw ma ko yàllaa ko bindee nii kokkali la du màgg. xaw ma ko ma dox ci kawam. a noppi ma dox ci kawam ma dox ci kawam. a moo bindee nii nga noppi ma doxee ci kawam comme comme ni ko seetaanee ah. Mhm. noonu la demee. yaa ngi dégg après ma def la nan. nga def demi félocé waaw mu yëwu sa kaw nga weñ ma. waaw jeex na mais yow bu dee nit technique. yow bu dee non nga war nga xam kii dafa def noppi kon. lu amul yaa ngi dégg mënoon naa ne daf maa daan rek cool mhm. yaa ngi dégg dama koy wax ni mu demee te bu doon leneen la ma waxaat ko nu mu demee parce que man kii rek laa ragal Ouzin ak yàlla bu ma tekki. mais léegi mais léegi mais léegi moo tax promoteur bëgg combat bi. bàyyi ñëpp yàlla la ñu ragal moom rek tamit nag. c'est que yéen wax lu garaaw yéen a ngi wax li tax promoteur bëgg moo ma woo. muy kan Assane Ndiaye. Mm-hmm. waaw seul te promoteur am la. du sama promoteur de Assane Ndiaye. man du ah, yoroo xaalis yoruma xaalisu Assane Ndiaye su ma joxee avance ma jël ko. Ouzin Assane Ndiaye moo woo. waaw Anta Seck woo ma. Xaadim Anta Seck promoteur la wala du promoteur. promoteur la. xam Xaadim pas. Mhm. du promoteur journaliste courtier la waaw courtier la wax bi doo ko raay wax nu mu demee rek. Xaadim mhm. Anta la. day mhm. doxal ay promoteur ay combat affaire yu demee noonu. waaw sa waay moo woo Xaadim Anta Seck woo ma gëdëm na ma ba sonn bu la neexee ma wan la vocal léegi. Xaadim na ma ba sonn ma man nangu woon naa de mais dama dem laaj sama staff sama coach vie ma koy siyaar tamit di ko xamal ne sama coach sa mën coach sa man maa ko mën sama coach na ma kooku boo ko jëlee ma bàyyi la àdduna ak alaaxira yaa ngi dégg sama ménagère as même waaw même bool dama lay expliqué dama lay expliqué sama ménagère as na ma wax nañ ma ko bu yàgg mais du ma la woo sax di la wax ay waxam coach yooyu xam nañ lu tax duñ ko jël bëgguñu parce que xam yooyu ñoom si jëm boobu dañ ma dañuy ñaan yàlla am ku mel ni Boy Dakar xam nga moo tax duñ bëgg ñooñu noonu si jëm boobu xam dañ may dañuy ñaan yàlla am ku mel ni Boy Dakar demoo puusoo paasoo lu may bëre ak yow gàqu ba mu bëre ci donte ni gàqoo daan dégg nga promoteur bu ne combat gàqu laa bëgg non ah, dama laa laaj mais gàqu lañ def nii dañoo bëri bëri gàqu lañ yëkkati loxoom kon moo am ndam yaa ngi mais déggaatoo ku wax gàqu yaag diw day fay mbër galaaj boobu la ko yàlla may du ma wax uti ji yàlla day fay mbër. kon kay maa ngi soog a xam da daw kon. su ma bëree bu ma la daanee damay gën a wàcc. moo tax ma ak ma la daanee soo man nga ma daan yow. ah jëlal avance bi. bëreewu ma ak yow. Ah, parce que waaw kon kay jeex na kon jeex na léegi mun loolu mun si yow ponkal bu toog mu ne bëreewu ma kenn mun si dara. yow xanaa léegi xanaa léegi wax fi franco la amoo amoo dara loo may waxati. am amoo dara loo may waxati bëreew ak na jeex nga problème bi ah. waaw gis nga man Ouzin Ousseyn xam fa laa juddoo géejawaay guy ga dañuy waxtaan bu ma dog guy ga laa juddoo man bu dul woon làmb leneen laay doon du lu may waxantu nii dañuy waxtaan ci làmb quoi. Mhm. damay sant làmb di ko gërëm. yaa ngi dégg. Mhm. woon làmb ñu may dégg ci leen man sant naa làmb bu ma ci amul fi ki dërëm fi ma juddoo moo tax damaa yeewu nii gis lu ne man dara feesul sama bët mais gis nga kii nii kii maa ko gën a yàqu téeméeri junni yoon maa ko gën a dof maanaam yaa ngi dégg kii bu ñu dem bëre Ousseyn boobaa ngeen xam kan mooy Baye Ba Ndiaye waaw mais da ngeen bëri nag man loolu laa bëgg. da ngeen bëri di leen avance bi. <laughs> Ousseyn ma woo Assane di ko jaajëfal bu baax a baax. di nga wax maanaam si gàttal. maanaam si gàttal man pare naa. yow noppi nga jekk nga fi maanaam xaaruma ko moom kese. te man tëkkuwuma ko. lamb moo toll foo xamante ne dañoo war a bëri entre nous. ñu ñooy mayante xaalis. kii du sama ennemi. Mhm. donte ñu ngi wax nii di yuuxu du sama ennemi. tey ñii ñoo ngi nekk fii nii mu naan su ma wàccee su ma lii suñu wàccee duñu defante waaw loolu moom am na moom. fàtteel loolu tàppet la ñuy wax. non non bàyyi ko déggoo ma de eh man maanaam dama lay waxal si xel bu sell. te bu ñu wàccee bu la neexee ma may la ndoom ba. déggoo ma de sama mayee ndoom ma buddi la. sama mayee ndoom ma buddi la. buddee sa ndigëli yàqu de. déggoo ma de sama ma buddi la. buddee sa ndigëli yàqu. booy de bëri nga wax. par trop ci wala su ma su ma màggee muuman tas sama yaakaaru baay. waaw déggoo ma de. naa nga bëri wax. <laughs> doo dërëm. su boobaa sax nag di nga gis ay paa yu uufante. gis na làmb ñun ñoo koy mun a defar <laughs> man xaar xaaruma ko moom kese yow ond nga ma waxoon moo fi ñëw su ma xamoon kii la baax billaa wal du ma ñëw di géem fii. waaw man NGB NGB laa damay déglu loolu dinaa la ko leeral parce que NGB laa dëkk quoi. parce que NGB xam nga amul ragal. NGB fuñ toj. NGB amul ragal. si football si lamb samp yow bu nekk jaar na booy bambara créé na fa champion bu nekk. Ah, dimbali ñu waay nga naan NBC. géeju waay Pikine feneen ak feneen ku nekk jóge na fu nekk ñëw bëri NGB ñun foofu la ñuy tiitaru foofu la ñuy ndamoo foofu amul ragal. NBG tojuñu fenn musoo dégg ku naan NBG xaw ma. gox bi ñu ay gox baal ba mun tur bi dégg nga ma xaw ma ah, mu soxla boo xam parce que maa koy doog a dégg lii di football toj nañ ko. ñun ñooy borom ñun sport ñun ko moom ñun la baaxoo. gis ngeen mbokk yi ñu lay demee ci jàmbaar eh, bu ñu boolee nga xam ne doo bandi bambara nga yow. bu ñu boolee di nga xam doo bandi bambara nga mboroxe lañ la jaayloo te eh, bu ñu boolee. bambara bu jaay bambara bu jaay mborox maa la gën a xasaw fuuf. bu jaay boolee nga xam maa la gën a xasaw bambara tuuloo xam am bi tuudi dumu a ah, bina la cee loolu loolu naa naa joola mbi faxa. loolu nga moom mais moom bandi man bandi laa. déggoo ma de déggoo ma de. voilà yow eh. yàgg nga raamal bambara mu lay jàppale say combat. ban bambara la. déggoo ma wax eh. dëggu ban bambara la. yàgg nga raamal bambara mu lay jàppale say combat. ban bambara la man lu ma la wax damay am ay firnde ban bambara la. booy xam nga lu ma lay wax bu baax. Ousseyn xam nga la laa gëm si nit. nit wax lu mu gëm lu mu dëgg. mais léegi Baaba la ma lay wax bal kii xam naa ne laa kii kii ma kii si gàttal wax ji la moo bëri nii rek. yow eh, toog ay góor. Eh, naan ñemewu la mais kii si jëmi boppam ñemewu ma. kii maa ko gën a xasaw fuuf. te ngaa toog. kii maa ko gën a eh, yaatu combat taxawagul de. signature de signature de da ngay toog. Ah, man góor du ma ñeme de. booy si daawun ak sa gàttaay. <laughs> maa la sut. maa la toog si daawun booy. si daawun nga bàyyi wax bi. Ah, nga ne dama laa ragal bàyyi maam. man lu may wax dama koy gëm man du ma tricher. ay du may waxuñu loolu. jël avance bi jël avance bi ñu géem. ñu géem tuus lu neex baaxul lu neex bëri lu neex ma daal la. yow looy feeñ déggoo ma de. dëggal déggoo ma de ma xool looy feeñ. bëri lu neex tuus lu sa baaxu lan la. man aw ma baaxu mais lu ñëw ma fecc ko. sama baaxu lan la. <laughs> waaw man géwél biir laa. dégguma de ma daasal la feccal la Baara Mbaye léegi. Baara feccal dafa lu la neex. mais lu ngay def de amul importance. <laughs> dégguma de lu ngay def lu neex ki daa mën a fecc lu eh. neex. kii kii amateur yi ñëwuñu ci làmb ndax feccam dañuy ñëw ngir lan mu naa kase. waaw kon sant yàlla la. mais man comme nga amateur yi ñoo ngi daggal billet di ñëw di seetaan sama geste bu may def. ah yaa ko wax de. te buñ dem bëri ah yaa ko wax man yaa ko wax de. parce que na ñoom ñoo dagg seen billet ma ñëw bëgg su ma ko bëggee non bañu ko de. man xam naa ne boo ko bëggoon tey tey mais làmb amul lu yomb quoi dañ ko wax dëgg dañ koy taxal làmb amul toog fii di draayante est que yaa ngi dégg mais bañu ko yaa ngi dégg kii su ma ko romboon muy dund leneen billaahi dama si teg sama baxan parce que sama mbokk la bu dul dara mbër la ni man du ma ko ñàkkal fayda ci yeneen. mais nag man xam naa ne yow da ngay dundal làmb. xam naa ne da ngay dundal làmb lu amateur yi bëgg da koy bëgg. mais combat bi amateur yi duñ ko bëgg nag Baye Mandiaye. ma wax la benn affaire di nga dégg Baye Mandiaye am na combat bu baax du yàgg dara. d' accord naa li nga. waaw parce que xam la moo tax kii di ma sonal suñu làmb. Hmm. Ousseyn maay fecc mu neex. Ousseyn yow xam ngeen Baye Mandiaye li muy indi stade bu baax maay indi mbooloo bi maa yëngal bu baax a baax moom du def dara day def instant ñu naan anam bu fan la nekkee man damay bëgg a bëre koo xamante ni day saf dañuy waxante pare saa sax ñu am luñ defante ci stade bi ñëpp yuuxu amateur ñu am luñ maanaam bu ñu ragalante lu mu laaj ñu def ko mais kii ay combat yu may sax day raam dire ko nii colli colli ba ñu woo ba sa baaxu lal la tëggal sa baax mu neex ma xam. Ousseyn waxuma Ousseyn waxuma Ousseyn Ousseyn yow nekk si tëggal sa baaxu mu neex man damaa baax. tëggal ma sa benn baaxu benn ma da nga may déglu déggal ma da ngay bégal amateur wala bégalu waa déglu ma déggal nga jug taxaw waa dégg déglu jugal taxaw sa yaram bi ay cote la dama xam waa léegi déglu ma waa déglu ma yow léegi nga yaa ma ëpp supporter yaa ma téeméeri junni yow waaw léegi yaa ma dàq bàqu yaa ma dàq lépp waaw jëlal combat bi ñu xool ma jël combat nga bëgg waaw jugal nga feccal ma baara mbay non non man affaire ñàkk fay doo mel ni ku manipulé xale ñu dem non non déggoo ma de affaire ñàkk fayda man du ma xale boo xamante ne damay nekk fi ñu may feccu la pour ma jël combat feccoo Baara Mbaye du ma nga fulla de Baara Mbaye <laughs> <laughs> ko ma jël combat fulla yow mais est doo ko may tuuti mu xam non su ko feccul dab da koy sàcc su ma ko feccalee da koy sàcc dem seen koñ di ko jàng boo ko feccee whatsapp sax ñu envoyé ma ko ma jël combat Baara Mbaye ah, bu bu jaar yoon nag dégg nga. <laughs> gis ngeen moo yi li leen nga am léer nga si am. ni mais combat bi doo ko jël gis ngeen lii dama dama namoon lii lii dama koy bëgg ci jàmmaaloo parce que dafa war a neex lii Coumba Gawlo wax naa dina neex dina yëngu gëm naa ne combat bi tam bu taxawee noonu lay demee dina neex dina yëngu. maam moo daanu ko su boobaa lépp leer de. ah ma ne su boobaa lépp leer. ba yow bu ñu dem bëree ma ñëw ba stade nga war a tuut feccoo baara mbay sax damay ñibbi. naan kii dafa may yablu quoi am. dégg ma de yow da ngaa yabaate sax yow. su ma ñëwee stade lu may baaxu. loolu neeku ci ba doo dof loo léegi ma defaral la yow. yow def dara doo def dara. Ah. da nga a moytu waaw yow doo def dara. dafa jeex na nag. Ah. yow may leen soo amoon kàddu yu mujj bu ngeen amoon kàddu yu mujj kan laa njëkkee wala moom. waaw loo def rek. boo amoon kàddu yu mujj lan lay doon. loolu loo def rek. waaw sant ñëpp. mais wax mu jël avance ba pare nag. moom su nekkee da koy jël wala jëlu ko moom xam na comprendre nga. lu ñu war a def def nañ ko. boo ma jël ko. déggoo ma de. ñu dem acca feccu ma baara mbay léegi. voilà waaw euh, ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. waaw boo nee baal ma tooguma la nan la ñuy tëggee baax a may. loolu rek laa la laaj. yow nga ne doomu géwél nga man. waaw dama laa laaj. man saa yaata yetu laa xam. dégg nga saa yaata yaatu sax mënoo ko fecc. déggu ma ma saa yaata yaatu. déggu ma sama ta sama pas de nga bëgg a gis. saa yaata yaatu boobu mën eh. naa la léegi. déggu ma ne feccal ma saa yaata yaatu yow. Eh. géwél su xamul lépp géwél lay maîtriser. man xolo kuddu cin sax dama ciy fecc. déggoo ma de kuddu kuddu cin bool bu daanu dama see fecc déggoo ma de eh. nee déggoo ma de sama pas de xanaa moom nga nam mu ngi mel yow da nam parce que musuma yow sa fecc xaw ma lan la. yow dégg ma de yàgg nga toog di ma suivre di tapé sa ah. YouTube booy Dakar. su ma ko mësee def ñu bëree yàlla na ma daan su ma ko mësee def yàlla na ma raw ci làmb. man dama raw si làmb bi man ma raw la nga naan ma yàlla ma raw. man dama laa raw c'est que xam nga ñun dañuy naxaate quoi yow yaa ma raw di ma tëg. tëkkuwu tëkkuwuma la de. la dañoo nekk adversaire yoo xamante ne ñun ñoo nekk si même cercle. da ngaa bëgg ma ma bëre ak yow. da nga may déglu feccal ma baara mbay. da nga may déglu si xel feccal ma baara mbay. loolu rek laa yow yow sa ban tànkay fecc ban tànk la ñaari sama nopp bi laay samp di fecc. foo nga bonee nag. waaw demal sa ko ñu jàngal la ko. nopp tàggatool tàggatool temps bi waaw ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. di sant euh, suma président Aïdara Mbacké Niass ba tey rek. Mhm. di sant sama papa Djibril Wade. waaw euh, maire euh, maire Grand ah. mhm. di sant sama yaay Ndeye Sall Diop ministre de la femme de la famille et du genre et protection des enfants. di sant waa biscuiterie bi yëpp. di sant Jean Baptiste Diouf waaw di sant samay si yëpp waaw waa Grand Dakar waa Mafia sant loi di leen sant bàyyiwuma leen benn yoon waaw di sant fidèle tamit xam nga di sant sama papa père Jaxate waaw tey su ma demee si làmb ba egg fu ma egg moom moo tax ak sama papa Mbaye Faye nga xamante ne moom moo ñëw ba sama papa mu ne jox ma sa doom bi ma yóbbu ko sama sama écurie ma def ko mbër maa ngi koy sant bu baax a baax a baax di sant sama coach su pek di sant sama waa écurie yëpp. suñu waa écrit yi képp koo xam ne am na fa combat yal na ko yàlla may ndam si barki Seydina Mohamed si barki weeru koor bu ñu jógee bii di sant euh, tamit euh, ku si mel ni euh, sama maara yu nekk Kaolack sama papa Bouba waaw waa Koylal Moussa Boy famille des Sankhare famille des Diobène sama grand papa Diop sama bàjjen Rama kër gu may ngemboo maa leen di sant di leen gërëm aw ma seen fay saa su nekk maa leen di remercier di leen gërëm bàyyiwu ma leen benn yoon. waaw di remercier ñëpp daal bàyyiwuma kenn waaw waaw di remercier staff bu baax ñoom Binta ñoom Lucia ñoom Angélique ñoom Aziza Kinte ñoom lamin Naar ñoom Aba waaw njóogu ambassade France maa ngi koy remercier bu baax a baax a baax njóogu borom France waaw nde ko njóogu waaw saa yi nag dama bëgg dem voyager xam nga pour dem liggéey waat lu am doole incha allah mu jàpp si visa bi waaw yokkaat lépp lépp la yokkaat gën a teg lu dis dama sama tuutiwaay laay toroxalee gars yi. moom moom moo may sauvé sama tuutiwaay bi. waaw tuutiwaay bi moo mooy mooy sauvé sama mooy sauvé mooy. wallaahi illaa déggoo ma de. tuutiwaay bee tax mu nangul jël avance. mu ko jël. <laughs> kàddu yu mujj lan la. waaw li jégalu àdduna rek bu fekkee wax ji dafa ñaaw ko waa wax ji ñaawul. parce que tamit def làmb nii la quoi. non làmb wax sponsor yi mën a ñëw quoi. foofu moom mais doo fi toog di dund affaire bureau yooyu. Mhm. yooyu amul. da nga fiy toog neexal merci. sponsor yi mën a ñëw def seen xaalis ci làmb. mais juguñu pour wax ci làmb lu ñaaw. Mhm. non dañuy neexal man ak moom. mais ci respect sponsor li tax mu daw mooy dañuy toog man ak sa waay. bi nga fi mujjee da nga ma waxoon ne ma euh, làmb amaguma sax vélo. Mhm. ci loolu nga nekk ba léegi wala. waaye ah, moom sib na Mamor mais sib na ñun làmb amuñu si cent franc. sonn dañ cee sonn làmb amuñu si. pétin xam nga pétin waaw xam nga pétin wuy ma xam nga pétin yi ñuy sol sa daal yi waaw mënuñu ko jënd ci làmb bu ñu ko amee suñu si leneen lañ ko amee mais du ci làmb làmb moo ñu sonal ñun yaa ngi dégg waaw dañuy am suñu benn bagage sax jaay ko def ko ci làmb moo tax tout le temps ma koy wax mbir mag yi bàyyi seen wàllu wéy na ousin ay millionnaire lañ am seeni kër seeni oto yu rafet koo ci gis muy jaay esaar moo tax. aw ma xa wàccatuñ sax ci làmb rek aw ma xaritu mbër bu mag. soxla ma ko hmm. ñoom ñëpp nag su may kilifa lañ. yaa ngi dégg mais dama gëm ni man lu may am maa koy sama bopp ñii dañoo yaakaar ci man sama yaay. Hmm. mi ngi murtani te dafaa war a jógee ñëw toog. am comme lu yaay ñëpp am. Hmm. te loolu topp mbër bu mag mayu la ko. nit ki lépp looy am sa ñàkk moo la koy ak sa gëm-gëm sa te ci loolu laay dee baay yaa ngi dégg. di ñaanal booy Dakar jàmm. xam nga di ko ñaanal jàmm di bëggee képp kuy mbër di la ñaanal li nga bëgg ci làmb yaa ko xam yaa na ko yàlla def di ñaan voyage boobu mu wax même bu dee da koy waxantu sax yàlla na ko suñu borom dëggalal antul ko ko ba mu dem li mu bëgg moo xam suñu borom defal ko ko boo ma xamul gentleman laa mais làmb vampire laaj waaw dañuy waxtaan bu dul làmb du ma siggi xool nit waaw mais làmb dëmmu laa ci man est-ce yaa ngi dégg loolu làmb rek la ma dal mais bu dul làmb nii xaru yar laa sama koñ ñëpp xam nañ ma ndax mbooloo boobu di ma topp ku mu ci romb du ma siggi xool la bàkki Seex Ahmadou Bamba mais lii lañ am quoi di ñaan sponsor yi nag ñu ñëw jàppale ñu. Mhm. ñun ay xale lañ amuñu lu làmb nañ ñëw jàpp ci rek. promoteur yi nag jàppaat ci bu baax. noonu la demee parce que promoteurs yi ñoom ñi ngi si. Mhm. mais tamit ñoom dañuy góorgóorlu seen moyenu bopp rek. mais sponsor quoi pourquoi pas ñoo mën a ñëw ci làmb xam nga dafa am leneen lu leen ne bu leen dem wala nu mu demee noonu ñoom mënuñu jaay seen i produit si lu gën a siiw làmb. waaw parce ku bëgg ku leen ku ku ku koy wane lañ bëgg. merci maam xam nga bu ñëwee. blouson boo ko joxee ñëpp dañu xam ne maam moo sa blouson sàngam. merci di di di wax daal làmb culture la xaw ma n'est-ce pas. Mhm. ndax nañ bàyyi gars yi ambiance sabar yi ñëw. amateur yi ñëw toog xam nga gars yi ambiance ñu fecc mu ne ñu bañ a bàyyi sabar yooyu ñuy wàññi ndax nga fecc sa yaata yoto bi xam nga lu ma la wax dellu fu mu nekkoon parce que dañoo am suñu arène nationale hmm. kon nañ bàyyi liñ daan tere dañ ko bàyyi mu ñëw mooy waral sax sa waa koñ di sabar di ñëw sponsor di ñëw parce que defar bu ëpp bu yàggee day yàq hmm. damay defar damay jël sama këyit damay bind jekki-jekkal jeex na bu yàggee bu bu bu bëree rek yàq te loolu moo yàq làmb ji CNG dëgg la ñooy suñu kilifa mhm. mais defar bi ñuy defar ci làmb moo ëpp moo dem ba yàq cafkay làmb billaahi mbëru mag yi am nañ chance de parce que ba ñuy ñëw dañoo fekk lépp neex mhm. ñun ba ñuy ñëw dañoo fekk lépp metti billaahi bàkki see Ahmadou Bamba dañ lay fay cent franc usine nga def ci un million làmb xëy di ñaanaatu sa gaay ondu ondu cent cent duñ ko gëm duñ ko gëm te Ouzin da ngay am bis sa yaay yaakaar ci yow am ay maire yoo xam ne dañuy jugee seen kër amuñu dépasse yaakaar ko ci yow te mun ñu ñëw mbay ndeysaan boo ko amul sax jooy ngay bëgg nit ku ne boo soñoon ku yaakaar ci yow bu jugee gàllem ñëw nga tereel ko. Mhm. man dew ma fenn ci làmb Ouzin mais ndeysaan xam nga da ngay gis sax ay kilifa yu jugee seen kër bàyyi ma njaay tey nangam tey nangam Ouzin bu ma la ko joxul sama àdduna day tukki parce que dama koy xoolee sama yaay bu ma sukk jur. Mhm. tey bu doon moom la ñun sàcc ñu naanu ñu agressé wuñu am suñu doole làmb lañ yaakaar képp ku ñu koy xañ rek yaa ngi yàq suñu live merci. waaw Ouzin saa lu mu wax li Baye Mandiaye lu mu wax li dama ko si dëggal xam nga am na loo xamante ne moom mu foog ma sànni si kàddu xam nga ñun mbër yi dañoo sonn billaay wala comme lu mu wax léegi rek gars yi dañuy ñëw ne diw lii lii xam nga expliqué war na yàlla koor bi rek la mujj. parce mhm. que Mohamed mais danañ def le tout ba dajale loo xamante ne sax dañ leen koy dem joxi di sant yàlla nag ñoo xamante ñoo ñuy jàppale surtout maa waa mouvement gilet orange Sénégal maa ngi si mouvement boobu nga xamante ne képp koo xam néew di doole la mooy ñu nekk si prison yi nekk si loo xamante ay tolof tolof la danañ fexe ba tànn si ñoo xamante ne ñoom ñoo gën a métile ñu jox leen ko ñoo xam dañ koy yelloo. Mm-hmm. xam nga comme que man amu boo xamante ne man maa ko liyal sama bopp. mais nekk naa si benn mouvement muy gilet orange Sénégal la nation pour nga xamante ne dama leen di gën a booster ñuy dugg si autorités yi ñu leen di jàppale ñu dem jàppale ñeneen gars yi. waaw dëkk bi nag métti na trop vraiment. waaw lamb doguma la mhm. di sant yàlla bu baax li ma ne wax sama signature man ak agogo bi sama booy yu ñu jàppoon ñaata cinq ci kaso bi sama sama deuxième combat man ak kan la ñu ne ñu Kooba ñu ngi leen tëjoon ñu ngi leen jàppoon cinquant mhm. sant naa yàlla nag ba bàyyi nañ leen. di ñaanal nag képp kuy topp Baye Mandiaye. Mhm. parce que loolu coono la ci man. damay romb sa yaay sax bàyyi di sëgg. ñun amuñu lu ñu fayalee kenn avocat amuñu xaalis bu ñu naxantewul. Ouzin min francs la ñu yor une semaine dañoo doylu rek mais amuñu amuñu ko buñ ko amoon kuñ jàpp tey suba doo fanaan. mais ngir yàlla képp kuy topp mbër rek boo defee ñaawteef bu la làmb taxee jug sañseel lu rafet nga dem toog zumbale sa mbër mu daan nga ñibbi bàyyi noppal mbër bi chaque su ba pare Ouzin dama yeewu fajar dem ci kaso yi di wër bàkki Serigne Touba ngir yàlla ak yonent bi képp ku may topp rek sañseel lu baax ñëw ñu bëre lu ñu yàlla may ñu santee ko ko dem ñibbi te ñu bàyyi yenn violence yi. day yàq làmb bàyyi da ngay gis benn mbër bu ñu jàpp koo xamante ni exemple yow da ngay dëkk géejawaay moom mu dëkk Pikine mhm. ñu mu mu ñëw sa làmb boo ko taxoon jug du agéré sa bàyyi mhm. bu doon yow rek yaa ko ñor du ut lu mu def ci poosam parce que bu ko bu sàccee def ci poosam du la ci may fii ki dërëm est-ce que yaa ngi dégg léegi moom bu sàccee ñu jàpp ko bu demee gàllem dañuy wax exemple combat booy dakaar lañ ko jàppee mhm. nga romb ay magam wala yaayam ñu lay xeelu di la ciy put jàpp ni yow yaa ko tëjlu yaa wala yow yaa ko ne demal nga sàcc te organi demeewul noonu damay dund loolu dangay ngay ay magam sax ñu lay dund ay business duñ ñu nuyu pour ñoom yow ku bon nga. Mm-hmm. comme ni ma ko commissaire bi waxee woon. na ma yow lan moo la tax a jug mën na ko làmb mën ma yow da ngay liggéey pour teral ko waa mën ma ko ñoom lan moo tax ba nga bëree pare mënuñoo ñibbi ñuy dox si télé bi def na ko sudul noonu. gars yi nañ ci jàpp quoi mbër yëpp la loolu day dal mbër yëpp. Mm-hmm. nañ ci jàpp ñu dindi loolu ñun ay noobu lañ bàyyi. bu dee alalu jàmbur mooy maye ñun du ñu am. Mm-hmm. ay noobul lañ waaw. waaw lu muy wax li tamit dafa ma dal mañ bañ naa ko ba man damay dem si monsieur le maire dem si commissaire dem si adjudant dem si ñëpp xam nga man jour bu may génn bu may sama combat bu mujj bi nii police moo ma yóbbu ba bu ma génnee ba fii parce que Seydina Mohamed booy bu ñu xamee loolu dañoo jiitu def lu ñuy def li parce que alxuraan karim après ñu noonu nag ñëpp xamoo leen de xam nga loolu parce que Seydina Mohamed maa dem maa dem benn anniversaire ñu invité ma ma toog ni jàkkaarloo ku jigéen ku jigéen ki moom may xelu billaahi wallaahi gis nga moom may xelu xelu yu métti dama ko keneen ku jigéen ki mu ne nga diw mu ne ma naa ko sama jour combat bi lañ sañ sama iPhone X gis nga te loolu soyoon Seydina Muhammad xamoo si dara eh, li muy wax ni dama ko dund dama yeewu suba teel merci booy Dakar dama yeewu suba teel ay maire ak benn jànk ñëw sama gaale na ma Baye Mandiaye démb lañ sàcc sama téléphone nangam nangam sama taaw yaay bi noxo kan moo ko jël Baye Mandiaye moo wàcc oto bi jël ko wala mun a non non si xaritami c'est-à-dire moom mu ngi lay taxal. Mhm. dañ koy dund te loolu dafa metti baay. Ouzin ñun ay champion lañ de Ouzin ñun soxla wuñu alul kenn kii mi ngi nii toog gis nga ni mel. Mhm. man maa ngi nii toog Ouzin bu ñu wàccoon fii benn nit romb ñu ne la kiritim li nga yor indi ko sans para sans ma ngeen jégal ma si dara quoi mais mhm. explication sans para sans dara nga jox ñu mais ñun dañuy dem diin yeewu 4 heures du matin dem diin ñibbi si dem saal ñëw tëdd nalaw ngoon ñu dem école ba physique contact bu ñu amul combat jël suñu bagage gàddu suñu saak xamuñu sax fi ñu jëm dem ci àll bi kër gu ñu dala baax na ñu fay lekk loo xamante nii sax ndeysaan di ko dund di dund lu metti dem bëri di ngir lan loo def sa poos te mënoon mhm. nga toog fii rek dund bu yomb bi mhm. kon kooku jàmbaar la est-ce que dégg may ñaan ci senegal jàmbur rek ñu ne ci kaso yi suñu borom génnee leen fa ñu ne ci hôpital yi yàlla fëgg seen bopp ñu ne ci suuf yàlla na leen yàlla yërëm xaare leen aljana yu gën a kawe di bëggee sama papa du mbay di bëggee jëriñoo na yëpp sëtu jéringoone yu maaloobe sàmba kulu mbiti seng ndaat ma faali ku ma ndaama bi balaa dégg fukki bal ñaar na tuy géwali ndaat ak géeri ndaat koo ci woo ku ne <laughs> maaloobe sàmba lay wuyoo waa di bëggee tamit waa paala ah. hmm. Ouzin di bëre di bëggee àdduna waaw tënk ko di bëggee àdduna gis nga li comme suñu mbokk yi rek xam nga ñun àndoon na tàggoo nga ba pare non da nga may déglu parce que li ñuy wax li dafa am importance mhm. parce que ñun mbëri barki Seydina Mohamed soo gisee léegi gars yi ñëwatuñ suñu combat loolu la sama benn booy keroog ko agressé koy def ñu ngi jógee ba ba Dakar exemple parce que dañuy xam sa tour nii rek ñëw ànd ci mbooloo bi gelbee ay fanam bee mu yoo xam nga nu mu def baam ko dañ wax dëgg parce que émission bi dëgg la taa bi gaaw na mais tam nit bi wax lu am solo bàyyi ko quoi parce que hmm. am na ñu biy jëriñ hmm. kéenee iPhone am bee mu yor bàyyi xamoo lu mu def ba am ko mu bàyyi ba booy dakaar di bëre moom yoonam nekku si mu ngi yegg si taxeem di dem di lijjanti ay bagage boppam yow nga ñëw ba kii ni ko kirtim nangu mu wax nga génneel ko jàmm yow kooku mbër baa la tax a jug kii àqam bu la dalee yow xam nga fi nga jëm ci àdduna. man sama am na sama avant bii nii sama combat bi te dogu ko dogu ko loolu ngay wax noonu kii mën na dem toog ñaanal làmb la yàlla làmb fay. sama ay maire naan yàlla nañ ko daan. wallaahi ndax loolu. njee mun nañ ma seede. billaahi ma ne sama sama ci oto bi laa toog man ak bébé bis mi. ma ne yàlla na ma yàlla fay sama xol. parce que ñii santuma leen lii ñu koy def raa ràññeewu ma leen ma ne ay waay Malick ñoo ne waxtaan ci oto bi ma ne waa Malick lii nu mu demee nii kër di tëj seen buntu yi dañ lay dàq ji ba nga dugg ci kër. kër yi di tëj man maa damaa. tiit leer na la ñuy def loolu. ma leen billaahi wallaahi xaw ma leen ko gisa bu ñu àndoon dama lay wax man la ñu man dama dëggu mais ñi koy def xaw ma nga gis. loolu la muy dawee am benn gel dañoo jël téléphone sam benn grand aya moo wàcc di joteeg ñoom ba nanguwaate mais boo gisee bi nu muy loxee ma toog ci oto bi na allah. sëñ daw nga wuti ñoo yàq laam boo bëggee dégg sa ñooñu di ci mbedd bi noonu. ñooy dem si newetaani Ousseyn ma ñooy dem ci newetaan ñooy dem ci xew yi. sama benn combat mujj bi gars yi pour ah. lañ génnee. ba dar ko dóor booy bi am ko xam ne taatu ne lañ ko def jigéen sama jour combat sama gars yi luñ ma mujjee wax yàlla la yàlla sutural sa yàlla la yàlla sa fay sa xol comme ça lu mu koy waxee lu muy wax nii lu mu nekk ci moom loolu moo nekk ci man parce que man du ma génn sama koñ di jéem a jaay dara wala may loolu moom mooy sauvé amaana tamit loolu moo koy sauvé mm-hmm. kon ñun suñu xol mel na lu mu war a mel quoi mais nañu topp ci loolu noonu ñun lu ñuy dund dafa leer de dëgg moom boo koy wax bul xool ku la ci mere bàyyi dëgg ñun nañu mere wax indi naa police ñu ne booy Dakar waru gémmee nii waru def lii. waaw barki Seydina Mohamed. te man li jënd arrangé wu leen. arrangé wu leen. mais loolu yëpp dañ koy sant yàlla demal 100 mètres xaaju booy fa dugg yëpp simol moo leen fa dugal simol moo leen fa dugal 100 ba yeneen kii yëpp xaaju booy yu sàcc yëpp simol ñooñu ñooy dem ci newetaani Ousseyn nekkul ci lamb rek la ñuy ñëw de ñooy dem ci newetaani ñooy dem ci kii yi lu mu tudd politique yi ñooy dem ci football ñooy dem ci anniversaire yi ñooy dem ci basket sax dañ fay dem parce que loolu mooy seen métier mais ñooñu dëkkuñu koñu Baye Mandiaye ñi koy def nii def tamit affaire boobu dëkkuñu koñu booy Dakar mais dañuy ñëw uniquement ngir am lu ñu yóbbu seen kër dañ lay sàqatoo ci maanaam si ngàttal xam nga luy sàqatoo mooy fee day am mbooloo ma dem seen biir mooy waral tey ñoom buñ sàccee man sam booy jàpp bi paas du ñaay sàcc de mais lu dañ leen a sàqatoo mooy sàcc naa sa kanam daw naa oto police na xaaj sama kanam yow nga nga mépp mel ni kuy daw xam oto bi da naan kii am na lu mu def te ñoom ñoom soxla wuñu explication ci làmb ak ci leen dañ lay gàddu rek mbéj dugal ci oto bi bu la yóbbee dañ naan danga dem def lii parce que ci simol bi lañ la jëlee baay ñooñu nañ ñu jàppale baay ñu ngi sàqatoo booy rek te booy duñu ay jël kata ah. di jégalu nag ci cas bi li ñu amoon ci temps jeex na li amoon temps jeex na combat bi nag nekk na combat bu neex dina wax ne promoteur yi nañ ko taxawal ndax bokk na ci li nga xamante ni day suqali làmb di kontaan ci Boy Dakar di kontaan ci ki nga xamante nii mooy Baye Mandiaye dina wax na nag làmb moo leen tax a jóg bàyyi leen lépp ndax làmb di leen jox dig daje beneen yoon beneen jàmmaarloo ci Wassare Làmb jaa ngeen